il est question de trois choses wala de trois partis muy un parti un leader et un état muy maanaam kuréel gi nga xamante ni bii tey ñi fi teew moom lañu fi teewal teewal fi le président du parti mu Ousmane Sonko teewal fi le président de la République di Bassirou Diomaye loolu mooy kuréel il est question de ce de ce parti ci kuréel googu lañu war a taal il est question du leader kan moo incarné parti boobu mais il est question aussi de ce de cet état bi nga xam te ne bii ñëpp wax nañ ne que c'est un état à refaire réew bi dañ ko war a tabaxal soubassement bi parti bi ak leader bi ak état bi lan moo lal action bi muy rupture systemique bi nga xam te ne bii moom lañ moom la ñu woote loolu moo waral jàpp naa ne ndaje mi wax jëpp foofu lay tourner. pour ñëw ci parti bi wax na ko wax bu mat sëkk muy c'est un parti qui a été bâti sur un don de soi don de soi pour la patrie parti la boo xam ne li ndaje bi nga xam te ne bii tey président Sonko woote na ko kañ samedi bër ki dem ci stade euh, Dakar Arena wane na confirmé na consolidé na don de soi bi ñu doon wax ndax un rassemblement bi nga xamante ni bii tey ña fay dem ñooy jël seen bopp en charge bu ñu demee dañuy joxe sa c'est une gestion inclusive parti la bi nga xamante ni bii tey y a une démocratie interne ci ni ma gisee seen doxalin parti la boo xam ne ni ñu koy gérer c'est une gestion inclusive muy parti boo xam ne kon jàpp nañ ni ku fa dugg cër ak dayoo bi nga xamante ni bii moom moo la moo moom moo war ci yow dinañ la ko jox. ñu ñëw kon ci deuxième point bi mooy le leader bi incarné parti boobu damay faral di wax ni dama koy faral di euh, di ko tënkee ci ñetti qualité muy leader Ousmane Sonko muy c'est quelqu'un qui est très résolu suñu waxee nit ku résolu mais c'est quelqu'un qui fait preuve de détermination sans se laisser anéantir par les difficultés wala les épreuves loolu yaakaar naa mooy li nga xamante ni bii moom la wane ci doxalin ba mu wootee lii mu wootee ba tey deuxième point de caractère bi nga xam te ne bi mooy c'est un homme résilient parce que fi mu jaar ba egsi fii ku résilient rek moo ko mën mooy koo xam ni c'est quelqu'un qui a capacité à surmonter les obstacles et à les beneen trait de caractère bi nga xam te ne bii ndax buñ ko toppee trait de caractère yi ma xam yi ma jàngat ci moom bari na mais dama ciy jukki ñetti yooyu rek beneen bi ko mujjeel c'est le pragmatisme pragmatisme tubaab mi ngi koy tekkee quelqu'un qui adopte une approche réaliste orientée vers des solutions concrètes maanaam moom li muy dox yoon wu muy teg day wax ni fii lañ jëm te nii lañ fay jaare pour am lu ñu bëgg kon ñetti trait de caractère yooyu man laa ko tënke loolu nag dafa am benn bindkat bu mag bu ñuy wax Albert Camus jàngkat yi dinañ xam li may wax Albert Camus dafa tënk benn bind bu rëy bu ñu tuddee la peste la peste mu ci retracé benn histoire bu vrai bu am ci benn dëkk bu ñuy wax Oran ca Algérie dundu benn épidémie bu ñu wax la peste en 1947 boo xam ne bi ngi doon ravager la population Albert Camus utilisé histoire boobu pour wat pour jàngale nit ñi àdduna dañ koy gisaat ci démarche lu tax ma indi histoire boobu dañ koy gisaat ci démarche président Ousmane Sonko gisaat ko ci démarche Pastef gis ko ci démarche nii ñu yore réew mi tey donc thème yi nga xam te ne bii développé na ko ci biir kii boobu mooy la de nos dirigeants ak la solidarité et la lutte contre le mal l'absurdité de nos dirigeants la solidarité et la lutte contre boo mal boo xoolee loolu moo caractérisé li fi am diggante deux mille vingt un ak léegi ci ci doxinu réew la de nos dirigeants mooy suñu dirigeants yi nu leen neex lañu yore woon suñu réew mi nu neex lañu yore réew mi faale wuñu pour man jafe-jafe ji nga xam te bi moom la population yi doon dund Albert Camus daf ko indi ci peste boobu bi mu amee population yi di dund lu metti mu am na ko symboliser li nga xam ne moom mooy taxaw Ousmane Sonko ñu koy wax docteur Rieu ci biir livre boobu docteur Rieu mu nekk médecin taxaw tem ne fokk mu saafara ñi tawat ba pare jële pest bi ci biir réew mi kon peste bi mooy ni ñu yore woon réew mi ñuy incarne loolu mooy ñee kii moom taxaw ne fokk mu jeexal loolu mais moom bi docteur Rieux jëlee jógee dox yoon boobu dafa am ñu taxaw di ko gàllankoor ne loolu du fi amee pest bi doo ko faj taxaw di ko gàllankoor peste maladie boo xam ne day rey ay nit di ravager population bi am ñu taxaw ne dañuy gàllankoor kee ak fajam ba du mën a faj nit ñi muy docteur Rieux il symbolise euh, la résistance l'engagement et la résistance contre l'absurdité de nos dirigeants docteur Riera dafa am ñu ko encadré ñoo ñooñu ñooy tey ñoom laa wooye ñi waa Pastef ñooñu lañ doon wooye le groupe Jean Tarou Jean Tarou groupe Jean Tarou ñoom ñoo taxawoon wër docteur Riera ne ko projet bi nga yor li nga bëgg ci réew mi ak li fi bëgg a jële ci maal ci lu bon bon dana am kon loolu laa doon tënk rek mën ko toppee mën naa gudd mais li ko résumé li résumé tënk daal loolu mooy lutte collective contre un mal moom moo symbolisé Pastef et son leader résime bi nga ci xam te moom nga ci mën a tënk mooy même dans une situation où tout semble sans espoir l'action et la solidarité humaine donnent du sens à l'existence mooy maanaam lu jafe-jafe bari bari lu jafe-jafe bari bari lu metti am am fokk am ku jug incarne résistance amuñu mbooloo mu jóg wër ko ngir ne ko lii résistance bii nga ñoo koy ànd ba egg ci loo nga xam te ne bii mooy ñoŋal dundu doomu aadama yi donc loolu tey laa tënk laa doon tënk ci Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ba accéder ay pouvoir ak li ci am lépp ci ay bis buñ paree ci résistance parce que résistance baax na loolu boo taxee jàkkaarloo jàmmarloo ba noppi leen population yi ñoom du ñuy def. mooy foofu nag la solution ñu donc c'est pour cela que nous avons assisté à la présentation de l'agenda national de transformation économique et sociale le président Bassirou Diomaye Faye présenté ko en compagnie du premier ministre muy li ñu doon présenté l'autre jour aussi CICAD ñu tënk ko ñoom ci ñu ne agenda national de transformation économique Sénégal 2050 ku dëgg 2050 da ngay yaakaar ne at yi bari na cinquante bu ñu fi naree toog di xaar réew mi dox kon fu ñu jëm te mille cinquante ak tey vingt ans la 25 cinquante la mais ñoom ñu ne kon 2025 ans bari na dañuy def benn plan d'action sur 10 ans plan d'action sur 10 ans mooy le master class 2 ans 10 ans bari ba tey ñu ne on va faire donc un plan d'action sectoriel sur 5 ans. boo xam te ne bii c' est des activités économiques pour relancer lekk les activités économiques de manière sectorielle chaque ministère di ko développer sur cinq ans réew mi léegi mu dox loolu nag mooy la vision cohérente et réaliste bi nga xam te ne bii tey moom la ñu état présent kon kon ñetti tënk yooyu muy parti bi doxalin doxalin bi mu amee ak ni ñu ko yoree ak fi mu jaar ba bi koy incarne ak bi ñu jotee réew mi état lan lañ teg ci loxoy nit ñi lan lañ leen proposé loolu lañ conscient ñu toog jàngat parce que nag man Moustapha Diop cadre laa ci administration sénégalaise damay toog jàngat ba ma toogee jàngat ma xam ni réew mi am na lu mu laaj woote nañu rupture systémique rupture systémique nag bu ñu ko waxee ay nit taxul parce que administration ñi fa doon liggéey jamonoy ab Wade rek jamono Abdou Diouf ak jamonoy su. actuellement moo si am c'est des cadres de l'administration quel que soit le régime dañuy liggéey ba retraité dem ñeneen ñëw mais rupture système bi bu ñu ko waxee c'est des comportements c'est des pratiques loolu la ñu woote loolu nag moo bokk na ci li nga xam ne moo ñu ambale ñun parce que fa ñu nekkoon di fa liggéey au niveau du ministère de la santé li nga xam te ne bii mooy cor carnage financier bi nga xam te ne ñu ngi koy dénoncer actuellement si réew mi ñun dañ ko faa gis constaté ko donc tey en tant que jeune. de l'administration nous ne pouvons pas que soutenir cette rupture systémique bi nga xam te ni moom la président Sonko di woote bu loolu weesoo bu ñu ñëwee tey ci élection législative yi di waaj a am ñu jël liste yi pour rek jàngat lan moo war a tax ñu war a soutenir Pastef na jël liste yi benn par benn ban liste moo ci ëpp tey et investi yoo xam te bii boo leen xoolee ñi c'est de vrais citoyens liste c'est Pastef ngay gis loolu parce que boo jëlee liste. yeneen liste yi du ma tudd parce que man bëgguma tooñ kenn mais en tout cas combat combat bi nga xam te bii ay population mooy tax ñu nu gis ñu incarne la liste de Pastef doon nañ ci sëkk kon nous avons le devoir ñun en tant que population de Mbacké de soutenir la liste Pastef pour permettre à ces à ces personnalités d'intégrer l'Assemblée nationale mais ñu yàpp ñu xëy na ay samay kilifa ngeen du mu leen yàpp mais danaa leen ñaan mooy le département département de Mbacké manque de tout Mbacké rawatina Mbacké commune dara amu fi tout est à refaire bu dara xewee Mbacké dañ leen di sërëm li li tubaab di wax la poudre de perlimpinpin mooy dañ leen di sant dara loo xam ne day nura ngelaw rek poussière bu poussière bi dalee dootoo gis dara gas nañ suñ mbedd yëpp. nit ñi duñ nekk si ay coono ba nga gis benn autorité te loolu aussi sëñ Cheikh sëñ Cheikh dama la ciy interpeller directement parce que solution yi nga xam te ne bii tey dañ koy apporter à Touba ministres yi gouvernement bi bu ñu jógee ñu ci bari lu ci bari ils vont directement ak Touba mais day baax nag ñuy bàyyi xel di ñëw Mbàkke di xam li fi xew. loolu euh, yéen ñi nga xam ne ay futurs députés ngeen en tout cas ñu leen koy bàyyi loo xel ñu xam ne Mbacké commune day dëkk bu jar a bàyyi du du jar a bàyyi xel parce que on manque de tout Mbacké bañ dalee booy dégg booy dégg turu Mbacké ba Mbacké dee Mbacké ba tey ki ñu yaakaar tey ak ëllëg ganee fi ba Mbacké dee Mbacké ba tey te Mbacké y a lu nit mën a envier doo fa loolu nag kon ñu ngi leen koy yóbbante ci ñi nga xam ne ñoo yor réew suñu dëkk bi nga xam ne amuñ lu dul moom nañ ñu ko bàyyil xel suñu engagement politique ci loolu la lalu si loolu la suñu engagement politique lalu nañu bàyyi xel Mbàkke parce que population yi mérite nañ changement population yi mérite nañ amélioration des conditions de vie kon pour ne pas continuer di retenir nit ñi ñu ngi leen di sant di leen delloo kàddu gi di santaat bu baax ñi nga xam ne bi ñëpp ñoo bàyyi seen ay yitte bàyyi seen lépp teew ngir sunu adhésion tey ci li nga xamante ni bii mooy cette rupture systémique li nga xamante ni bii tey mooy appel bi le président Diomaye lancé pour participer à l'effort de construction nationale à travers ce plan que nous appelons l'agenda national de transformation économique 2000 Sénégal 2050 ñu ngi ci adhéré bis ni ki tey di ci tàllal ñëpp loxo nañu ànd soutenir la politique de l'État nañu ànd soutenir la liste Pastef doxee jox président président ñu jox ko une majorité écrasante à l'Assemblée nationale parce que parce que loolu bu amul ñi nga xam te ne bii ñoo taxaw taxaw temb ne solution yi nga xam te ne bii moom moo war a am ci ngir seen nit ñi population yi mën a am changement ñee taxaw ca geneen wet ga dinañ fexe la tout ba di ko gàllankoor bu ñu amee tuuti taxawaay man su ma doon population yi ñoo ñooñu waruñoo am lu ëpp juróomi député juróomi député loolu sëkk ci boo boole opposition bi lépp li ci des ñu ko président ak premier ministre ñu gouverneur réew mi politique ak loi yi nga xam ne bi moom la ñu war a jàllale pour mën a jongandi réew ñu mën koo jongandi en tout cas ñu ngi sant ñëpp.